bari bagaat loolo. benn bar yow lay xaar génneel ma sama walis. yow di jaay tey di nga ma may baat de. yàlla xam ne bakkan sama la ko may ma baat. may ñu baat may ñu baat dañuy dem. yéen may baat may ñu baat di divorcé yeeg. jéem a may yaa yéen yow xam nga leen. isa xam nga ubbi ubbi. ubbi xam nga ubbi. ubbi Ibi Mbacke Ndiaye. ubbi maanaam maanaam borom ñaari tur yi. Hmm. yow moom nga. lan la yow. i i yaa indi yoon caaki yi. caaki la pour lan. nga bu ndax yow kër gii man dama fee am baat bu rëy ndax kii kii waaw lépp lu mu am soo ba ca soo mën a booy jaru nga la yaay dund mu rëy de lu leer laa lay wax booy xam la laa bëgg xam booy man kan laa lay nuroo waaw war ngaa yam sa kanam gi di mel ne ràcc taxin sama papa sama sama xaritu papa nga lay nuroo waay sama xaritu papa booy war naa la sa papa booy war kii rabalaay booy war naa la sa papa nga xool da ngeen a waay waay bul wax loolu ku la boo ma tey seytaane rek la waay du seytaane wax naa la weeru koor gi weeru koor yàlla suñu borom tënk na lépp péré xanaa booy yow ndax xam nga jom booy xanaa nga tiit booy maire da nga naan tiit la laa jox tiit bi ni yamar ko da nga tiit te nag booy naa la nga ne bëri yow eh xam nga laa la yëgal doo ma lebloo koñ bi yëpp chaque jour ginaar dibi yu kenn xamul sa morom booy social kon fenal moo fi nekkut booy waxal wax ji wax jee la wax jee ngi nii mooy dul nga moom ki nga jaay duñ ko lijjël indi joxal li man maa joxawul dara joxuma ko dara moo tax ma koy jox dinañ jënd dama lay bañ a laal parce que dama woor dama lay bañ a laal mais joxel lii eh, gis nga booy gis nga li tubaab bi doon wax daal la moom la war a wasalaat bi si may fi ngeen si moom ay participation pas minute yow xale bi nga bëgg noonu mm-hmm. kete ko yar ko yiir ko ba tey jilee mhm. ñaan nga yàlla alak mhm. mu nekk sa urul ay ni aljana waaw wayo ñaayo gay naago dan joy ey Moussa bari bagaat loolo seeri ware joben bi la jor jobay mamam ay musa bari bagas iya ka bari mana iya saf réew mi looloy bayi benn baar moo am ay feeling bayi benn baar moo bari bagas sa chéri bi mat awo ñaareel ñetteel ak ñeenteel moo bari feeling ware bari feeling chéri musa bari feeling yaayaayu benn baar ya waree job moom moom feeling doxalan lu tax di feeling saf nga waare mi ya bari feeling ya bari feeling doxal bari feeling waaw waaw moo bari feeling